Euh, ministre de la santé euh, dafa am ay engagement yo xamantene ni euh, daf ko jëloon par rapport ñom ak seen ay revendications mais ba légui respecté wul lolu té pourtant moom mo leen digoné bu ñëwé dina ci jublu. jublu mhm. ah est-ce que yegul entre temps ni duñu ay militants Pastef. <laughs> non sérieux xamna peut-être ci diggante bi dafa dem gëstu mu dem xol ni gaay sen seen CV yi peut-être du ay militant passif. am na lu mu fi waxoon de moom docteur Ibrahima Sy. Ah. Mhm. parce que créé nañu collectif de xawma lan. agent de santé du passif. Mhm. am na collectif bu ñu kiiyee noonu. Mhm. agent santé PASTEF. gis naa ko ils ont créé ça. mooy ñu liggéey ci santé ñoo xam ne passif la ñu bokk. def ko seen logo def ba mun a créé nañ ko. léegi loolu pour la division boobu. mais Sénégal ñaar la ku mu neex ak ku mu naqari Sénégal réew mi deux la. le sénégalais pastéfien. waaw et le sé sénégalais fépp nag foo laal nag. ci réew mi foo laal même les points les plus sensibles yu ma dul wax ci ci émission. Mm-hmm. foo xam ne fu ñëpp bokk. mais ñaar moo fa nekk c' est malheureusement la triste réalité te ñii bu ñu faloo. Mm-hmm. gis nañu loolu automatiquement ci nomination yi. Mm-hmm. ni am na ñu yàgg nekk ci au sein de l' état ñu doon liggéey pour ñoom. pour leur république la république de Pastef. looloo fi continuer am léegi revendication agent santé yi ak yooyu noonu. Mhm. bon boo xoolee ci kiiwu santé du bëri na ay syndicat mhm. donc euh, syndicat yi moom ci Ablaye moom comme til ak male ko xëy rek créer syndicat mhm. syndicat yi bëri syndicat santé yi moom du lakk jeexalu ko donc revendication yi ñuy wax ni ñii ñoo engagé woon defal leen ko régime bi changé na ñii ñoo ko diggoon ñoo leen ko diggoon defuñu ko heure bii de moom dama jàpp ni réew mi ku fi revendiquer dara da ngay sonal sa bopp. pourquoi. parce que sa revendication ñii fu mu toll nii mënuñu la ko defar. du ñu jël en compte les man lu ma gis sax wàññi wàññi ñoom lu ñu téye les ak yi moo gën a jege que ñu yokkal leen bu dee dañu bëgg a dëgg ku leen di wax dëgg wàññi salaire senegal mun na ci toll ci fan yi ñëw mm-hmm. muñ bi nii foofu la wañ wàññi avantage. mën na ñëw. Mm. ñoom lu ñuy kaas nii lu ñu téye as ndaw mën nañ fi doxal quelque weer ñu ne leen li ngeen am nii faw ñu sàkk ci tuuti dans le cadre de l'effort de guerre comme l'a appelé Churchill. Mm-hmm. <laughs> Winston Churchill Ousmane Sonko moom la cité ni bu muy wax américain yi guerre la ñu nekk il faudra xam nga ñu ñu def des efforts de guerre sénégalais yi foofu la ñu toll effort de guerre nag xam naa du ñàkk ci ñoom je vais pas tous ñoom les les les kii. am na ñoo xam ne ñoom la ñu votel hmm. nañu nangu loolu ni sénégalais yi fu mu toll nii muñ moo fi nekk mais quant à revendiquer fi dara ba jot ko léegi nii hmm. ngir yàlla nañu dem liggéey man loolu laa leen di conseillé nañu dem liggéey parce que ñu ngi yor ñu ngi gérer secteur boo xamante ne bu sensible hmm. réew mi fu mu toll nii bu fekkee dañu ñëw toll fu ak méttiwaay dëkk bi ñu bëgg a diirante mbagg ak nguur gu fi ne citoyen maanaam les patients ñoom loru mhm. voilà bu fekkee dafa am loo xamante ne maanaam lu ñu ju réew bu ñuy bu ñuy jël fonction ni dañuy remplir les charges loo xamante ne mission bu noble bu ñu am mhm. nañu dem liggéey ñi def ay sitting ñi takk brassard rouge mhm. ñu dem liggéey mais grève bañ a cesser toute activité moom franchement en bon patriote que nous sommes et que je suis en bon républicain man li ma gëm nañu dem liggéey parce que man gëm naa ni ci réew. Hmm. agent santé warul banque ay loxo. surtout waaw parce que am na dee du xaar. nit ku hmm. tëdd ci lal hôpital nga war a hmm. def ci moom dara. lépp même bu doon fayuñu la mun nga xeexee d'une autre façon. que grève banque say loxo. loolu moom man anduma ci tey anduma ci heureux et je suis je m'inscris pas dans cette démarche même si dama jàpp ni citoyen bu nekk am nga sa ax ak say yelleef ci réew mi boo liggéeyee dañ la war a fay. nit mun la dikk ay affaires yoo xamante ne à l'impossible ni lay tonni nguur gee mënoon nañ leen ko dikk boo gisee defuñu ko peut-être sottiwul. Mhm. donc ñii tamit ñu ngi soog a yegsi. Mhm. je suis pas tendre du tout tendre avec eux mais am na lu mën a nekk am na lu mënul nekk. te moment bi moom gëw moom ni mën na nekk te gëm naa ne du déwén. Mhm. xaw nag lu ñuy. Mm. une revendication le pécuniaire c'est une prise en charge médicale rémunération adéquate mm. et paiement irrégulier. c'est ça. Ah, prise en charge médicale mm-hmm. parce que loolu nous mi la dette de l'État mm-hmm. deuxième rémunération adéquate. rémunération adéquate mm. temps en ruine état bu am problème fay service de la dette état boo xamante ne mooy mooy loolu duñ ko am loolu moom dañ ko xam man loolu laa leen mun a wax bu ñu doon dañu bëgg a dégg ministre bi lu mu leen wax noonu bu fekkee daf leen joxoon engagement mhm. fekkee mu ngi soog a toog xamuñu affaire yi fu mu toll mhm. fu ñu toll nii moom. kon yooyu moom mënut a ne. du golo na xam na ko bootee doomam. <laughs> mami euh, euh, Fidèle wax na ko tout à l'heure euh, santé secteur la boo xamante ne nii dafa important. Mhm. ba pare capital mais également nekk secteur bu sensible. comme mhm. ni mu ko waxee feebar du xaar de itam am na loo xamante ne nii du ko ca xaar. Mhm. tey bu ñu demee ba les agents de santé wala boog ñenn ci ñi nga xamante ne ni ñoo fay liggéeyee décider banque seen ay loxo. tout simplement parce que nee nañu.

la santé prime avant tout. donc man pour man nangu li nga euh, fidèle le fait que ñoom euh, ñooy ay nous fajkat donc nous grève parce que aussi bu ñu nous ci nous lay nous ku ci nous war dem faju ji Nous faju mm-hmm. day problème d'accord mais nous aussi si nous sommes dans de très bonnes conditions Nous Nous ne pouvons pas travailler et je rappelle que nous, Euh, euh, mettre nañ en garde gouvernement bi. parce que njëkkoon nañ fi def grève 48 bi ñu bi ñu grève boobu noonu ci lañ mettre en garde gouvernement bi ne leen dans 30 jours xaw ma jours lañ waxoon bu ñu gisul benn amélioration ci seen ay demandes dinañ décréter grève boo xamante ne xamuñ du am àpp. Mhm. donc préveniroon nañ leen yéen ñii nga xamante ni ñoo yor wàllum santé santé nekk lu lu.

même su fekkee li ñuy li ñuy li ñuy li ñu doon ñaxtu du ko faj à 100 pour cent mhm. dina ko faj à quarante pour cent mhm. ne leen le léegi mu ñëw leen ñu ko ba ba ba tel date ba tel date mhm. pourquoi mënuñu def noonu dépp ba jamono neex ñii depuis ñu ñu ñu ñu ñuy alerté ba tey amul ben yoon bo xamanteni ni wax génn nañ wax ni ministre bi woo nañ wala ministre bi wax wax nañu li hmm. proposé nañu li donc ñom dañu wara a xel ni parce que tamit dañuy liggéey hmm. ñom dañuy dañoo yor njabot amana liñ ñu leen di fay ci lañ yoré seen njabot te comme li ma wax sank buñu nekkul dans de très bonnes conditions duñu mëna fa kenn parce que mënoo feebar ba pare di fajaate hmm. ki feebar mënu fajaate ah voilà donc nañ leen nañ leen nañ leen woo ñu parce que euh, avant euh, dialogue la ñu lañu lañu la ñu kii woon euh, prioriser won mhm. voilà c'est ça né ne dialogue lañu bëgg mais bu ñu bu fekkee yow tay ma lay woo yow ay surtout ci dialogue nangoma wuy ci dialogue damay utiliser benen méthode peut-être ci phase bobu lañu toll am nañu une rencontre sax bu ñu euh, mhm. euh, le COMES le SAMES et les mhm. autorités du ministère de la santé et de l'action sociale ñu né plusieurs engagements ont été pris par le ministère mais justement pour ñu jëfé engagement yo rencontre bobu rencontre bobu c'était avant c'est sen premier grève bi mhm. sen biñu décréter sen deux sen deux seen deux jours de grève yoy mhm. non bo fekk na rencontre bi am ba paré mhm. légui après rencontre bi nak lañ tok di déglu déglu bu déggu ñu lañ ci lañ décrété 48 heures de grève biñu ñu levé wee grève bobu non dañu menacer waat je sais pas alerté waat gouvernement bi ne leen dans 15 jours bu ngeen fajul suñu ay soxla wala liñ ñu leen réclamer bu ngeen ñuko joxul dinañ décréter waat grève donc le gouvernement a été alerté donc pourquoi ñi fajj kat yi met ay way santé santé wér gi yaram fi mu ne Sénégal ñëpp feebar ku la jàmbatul bopp mi lay jàmbat ñëpp tout le monde est malade euh. boo demee ci hôpitaux yi nga koy xam mm-hmm. tout le monde est donc bu ñu bu ñu nangu di di di di leen def loo xamante ne amaan na ñoom bu ñu riposté wala ñu réagir ci askan wi lay lay lay metti mm-hmm. waaye ñoom itam nañu bàyyi xel bu baax a baax askan wi euh, xam ni euh, am na ci yenn ci ay secteurs yoo xamante ne nii moom. boo ko yoree moom musiba faaw nga am noo xamante ne nii ne serait-ce waxee euh, mhm. fidèle ce euh, esprit de patriotisme rek justement warna la may mhm. xeyna nga utiliser yenen stratégie wala yenen méthode de combat yo xamante mhm. ne nii xëy euh, mën nga ci am li nga xamante ne ni mom nga bëggaay sa ko effectivement ana li nga am na solo bu baax a baax nañu bayyi xel ñoom syndicat yu santé yi ñu bayyi xel bu baax baax aussi tamit ni xamni ni santé boom suñu priorité la bo xamni ni tey jii boo ci mbedd mi gis ku feebar da nga naan ko ay yow demal hôpital demal ñu fay faj la demal ñu xol la tey bu hôpital fekk ñu grève nu muy def day découragé tay bu démé euh, hôpital amul prise en charge bi ci war nu muy def leneen ak société bi dañ koy wax ni rek mais tay grève hôpital urgence am dañ koy jël parce que tamit xanaa nag du ñàkkee xool noonu. mi ngi noonu mooy mooy mooy patriotisme bi ngeen di wax léegi nii rek. Mm-hmm. kon loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a di jël les devants te lii nii ana ñuy waxtaane nii man deux semaine ci ginnaaw déggoon naa ko. Euh, ba ci RFM laa ko déggee woon sax nag ak waa ànd gësëm ñu ciy wax ak yooyu mm-hmm. noonu. mu mel ni euh, ñoom la ñu doon yëglu ak la ñu bëgg état dalal leen ngir ñu waxtaan ba tey sotteegul léegi lan mooy problème bi yéen a wax léegi léegi nii euh, état amuñu seen jot. wala peut-être ñoom ci li ñu nekk ñoom nekkuñu ci. Mhm. état dafa war a tourner nekk ci lii parce que lii moom mooy. Euh, priorité instant bi mhm. euh, lii nii la ñu war a wax nag bu baax a baax duut ci baaraam nii askan wi dañoo feebar askan wi nag mënoo mënuñoo ñàkk lekk fi mu nekk nii ba pare bëgg feebar day gën a metti ndax boo lekkulee lu baax sax doo wér. asamaan léegi nag nga bëgg dem ci hôpitaux yu fekk leen ñu xëy banque seeni loxo lan moo ko waral ñu ni dañoo bëgg négociation ñu yokk seen salaire prise en charge bi itam ci ñeen seen wàll nañ leen ko waxee woon ñu def ko état aussi na bàyyi xel ni kon nit ki buñ la waxee dara loolu na na nga na nga sàmm sa kàddu ci ni mu waree nga def ko ñoom itam dañoo nekk ay père de famille dañoo nekk ñoo xam ne dañoo bokk ci société bi encore une fois Euh, lépp lu ñu wax ak ñoom war nañ ko mën a def euh, éviter li nga xam ne moo fi amoon avant te ñu weesu ko muy gouvernement bi fi nekkoon xam nga amaana na mu doon doxee ak ñoom euh, encore une fois rek mooy li may wax ci déception bi nga xam ne am nañ ko ci ci ci autorité yi rek ni li ñu fi dundoon la ñuy bëgg dundaat. ay grève sont douze heures quarante huit heures yooyu dafa doy rawatina ci secteur santé bi mhm. dañ cee war a jël nag ay euh, prérogatives yoo xam ni dafay nekk lu am solo ba ku ko dégg ni ah accam nguur gi lii la fi teg wax ngeen sànq ni Ousmane Sonko ba ñu fi tegee ba léegi lan la fi wax lu am solo loo xam ne tey jii mën nañu wax ni ah le premier ministre li mu wax de bu ñu defee sondage ñëpp ci d'accord ak moom te loolu gisaguñu ko li ñu bëgg kay mooy santé bii nii nga xam ne jamono jii ñoom ñu ngi bëgg dem grève ñu neen ah sama gars yi bu leen dem nañu waxtaan bu fekkee ñetti point la ñaari point yi mën nañ ko wala benn bi ñu négocier en attendant parce que loo gis tamit dialogue mhm. daf cee am solo ñu waxtaanee ko xool ba xam dinañu am solution buñ ko amulee xaaj bi ñu mën leen ci dimbali ndax askan wi sonn nañu santé moom wax dëgg yàlla ñan nañ leen ko rek grève bi moom 112 heures 3 jours dafa yàgg nañu waxtaan rek ak état aussi tamit woo leen ngir mën a waxtaan ak ñoom ñu xool nan la ñuy trouver solution ci loolu. ayca mi ngi noonu ñu xool naka la ñuy trouver solution euh, par rapport ak li nga xam xamante ne nii moom mu am euh, ci euh, agent de santé yi nekk en grève banque seen euh, loxo jamono ji ku wax lii wax la ca des boo jógee ci inondation di nga wax waxu santé boo jógee ci santé suba ba léegi mami nee nga sa poche dara newu ci mm-hmm. dëkk bi kale na mm-hmm. nekk Euh, euh, Anna euh, Nguy Dabakh nek ci commentaire mi ngi ñuy leeral que ni mhm. le serment d'Hippocrate leur impose de travailler quel qu'en soit leur condition de travail mhm. donc ñom ils sont obligés de travailler mhm. Amna le droit grève mais autrement amuñu droit di banque sen loxo bañ a baña bañ a ah, c'est ça alors li ma doon wax sànq fidèle euh euh c'est-à-dire situation bi nga xamantene ni mom mo am ci